waaye bu dee nag fu ngeen toog rek ci daayira bi wala ci association bi nasa nas ba àggal kenn ku nekk génne say xalaat waa xas ba noppi te bu def jotee boo wootee doo gis kenn boo laajee ñu tuutal lay jox loolay bëggut ci li nga xam ne mooy rafetal ànd bii Serigne Touba wax ne moo leen di may li ngeen bëgg ne ànd bi li koy rafetal mooy kenn ku nekk lépp lu mu jël engagement ca kanam mbooloo ma bu def ko jotee mu def ko bu waree teew du manqué.